saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa sunu lamb ma xëy ne lamb ja sàjj na saison bu tijjeegut lamb ja sàjj ana lu ko waral mu ne saison 2020 2021 bii ñu dëgmal lamb nar naa delluwaat mu nekkoon lamb nar naa saf la mu daan saf neex na mu a am olof dafa ne saison bi tijjeegul ñu taxawal ñeenti grand combat Balla Gaye 2 Gris Bordeaux combat de la revanche mën nañ koo dippe ba léegi combat de la clarification diggante Balla Gaye 2 Gris ñi jàppoon ne leeru ci saison 2021 la fa séenee leer beneen combat ba diggante Eumeu la bu Tay Shinga ak Bombardier bu Mbour bile combat mën nañ koo dippe le combat de la retraite bile combat mën nañ koo jàppe cooki fin beneen grand combat ba mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé diggante xarañ loo ak sëll ndaw loolee combat royal la bile combat ku ci daan yóbbu ndam yóbbu couronne beneen combat ba mooy diggante Siteu le Tarkinda ak Papa fa yéene jàkkaarloo Siteu ak Papa Sow fas yéene yeneen i combat fas yéene ñëw bi saison mbër mu ne neexul da nga cee bëre wut le journal ba jàpp ne moo ko nar a gàkkal mooy arbitre ya lanu jàpp ne moo nar a xejamal bi le saison mooy arbitre ya gannaaw bañ ci rajee ñenn ñi acci ñenn ñi lu toll ci téeméeri arbitre jàpp nañ ne dañ leen a dàq lu ëpp téeméeri arbitre jàpp nañ ne dañ leen a rajee li ñu war a toog waxtaane ci péncoo ko balaa saison béeti ji mooy loolu combat yi taxaw na nar naa neex waaye problème arbitre yi ko bi le situation buñ ko telte réglé moo yàq lamb ji ba mu yàqu a sauver ngeen ba moo yëkkini Junior moom Yékini Junior depuis mu jóge ci defetam contre Tafatine ba léegi amaatagul combat sonn ci année balance moo tax mu bëgg xooliwaat beneen combat génn ci ak ndam kan nga soxla mu ne Boy Niang 2 na ñëw ñu bëre wala bu Boy Niang 2 ñëw na guy gi ñëw diggante Yékini Junior ak guy gi la journal ba xam mooy combat bu logique la combat bu jaadu la combat bu nar neex la leneen la jaadu ca làmb te ñu taxawal ko mooy association des promoteurs de mooy sunu papa yile promoteuru lutte sans frappe dañoo bëgg a rénover ji gannaaw ba ñu bàyyee seen waar ba lutte sans frappe am gëdd ci réew mi dañ koo bëgg yóbbu feneen yóbbu ko fu ko kenn dul foogee jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën fës ci tu bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha